Sen'Eau une société qui s'occupe vraiment de la production de l'eau au Sénégal m'a initié une école de formation mu école des plombiers donc da fay soxla ñoo xamné dañuy liggéey ci walu plomberie bo xolé ndox ndox lu am solo la tey jii nii lu ñuy def tay bu ndox da fay jafe donc plombier am nga formation professionnelle mom nit ñi dañuy ñu bari dañ ko xamul trop mais lepp lo gis tey jii nii dafa bax nit ñi ñu tagat leen ci tey jii nag boo entreprise mu ne dafay liggéey ci loolu léegi mu soxla ay ndaw yoo xam ne nekk dañ ci war a nar a liggéey léegi mu recruter leen ñoom ñu nar leen former pendant 3 ans bu leen former ba pare moom mu recruter ko ñun nga xam ne nekk ñun banque de financement de la formation lañ muy 3FPT fonds de financement dañuy rafetlu loolu noonu te dañ koy accompagner donc ñun dañoo ñëw fii tey pour soutenir cette initiative là parce que boo xoolee programme bi yëpp ñun toog nañ ci lu toll ni 350 millions

qui est un métier difficile, où il n'y avait pas de formation. Il fallait mettre nous, formation. une formation. Formation, c'est une deuxième promotion. La Promotion, est les jeunes, 32 jeunes, nous avons des jeunes qui sont la promotion daaw bi trente des jeunes li ci rek former les jeunes former les tu tàngat leen euh, métier de formation formation bi amna formation bi formation diplômante dans dans un an pour ñu commencer promotion daw dans dans trois ans pour ñu commencer suñu duggé ci entreprise dans le secteur de l'eau dans un métier et ça c'est qui est important ci euh, ci lu def li am solo rek moy ambition bu am globalement mais notamment dans notre métier de base former les jeunes professionnel sur des valeurs techniques yoo xam valeurs valeur valeur occidentale la sur xam ne su ñu nekkee ci terrain bi di liggéey daan xam ne ay objectif bi te formation bi moo leen di permettre incha allah nu mën ko matale incha allah. bànneexu di remercier sama partenaire yi ñëw di leen wax au nom du centre au nom du conseil d'administration beeg yëgte bu am par rapport ak le choix porté ci centre bi pour dans xew-xew bi waaw loolu mbégte la ci ñun te suñu liggéey la ñuy def parce que tey lu ñuy former dañ koy former pour les entreprises tey soo amee entreprise boo xam ne gis na bëgg ba xaytu gis na am na benn formation mu bëgg ñëw mu ne na bu ngeen former ko on a fait que ça réjouir te loolu la ñuy xaar te loolu mooy mission première d'ailleurs du centre former et donner des produits vraiment employables de bonne qualité pour le développement de manière générale du secteur du BTP également de notre cher pays parce que tey comme nu ko waxee la directrice du fonds xëy ndaw bi mais également toute entreprise de façon une main d'œuvre qualifiée pour pouvoir développer parce que la concurrence est rude au niveau international